Thank you. xamante ne moom la doomu Guédiawaye ji indi muy Ado di doom si lan Sané xale bi premier combat mu du stade mu toll nii waaw yàlla lafal cat di wax ne leen demee tey ñun ak waa Dakar tey nee tey incha allah ak ñi nga xamante ne mooy waa Baol TV ñoo ànd si lamb ji dara du leen si raté xooli mbëri xooli ambiance waxtaan ak gars xooli grand combat bi. daanaka boo leen mobilisé na teru Ado laa ilaha illallah mais xale bi la kii xolam li mu initié ay mbooloo xale yaa ngi yu ko aado yee nekk ay ndaanaan ci lam ñi sama waa koñ lañu xamit ñi sama yoo dëkk baa ñoom xala ba lii bi xam ma fi yaa baa ngi nii <laughs> gaa yaa ngi nii <laughs> ñu <laughs> mu jeex. waaw tax kay. ah doo nekk nii ndeysaan. waaw wax ju rëy ji te muy daal. bilaay ndaw nga ñaan yàlla yàlla may ndam quoi. ak mu daan jënd bu rëy. kattan suñu borom. moom di cinquante. waaw waaw gis nga. gis nga moom di cinquante. bilaay moom si woon kay leen ko rek yàlla baax na. Cheikh Super Diamano supporter am yi Cheikh Super Diamano ngi xale dañ koo gëm sol ci Fadam ama lamba demee nii dana ma war tuus ñu ngi préparé ci moom mooy war a bëre capitaine dina ndaanaan la xale bi li ngi gis xar fa xuuf ak débat dee bi Lamine lii lan la bokk internet Dakar ñoo ŋànk lamb ji wuro wa na ko waxi ma dem na ngan taali bàkk war ñaari mbëri bu ñu ruufa <laughs> xaali njaqu Ousmane yi <laughs> neen ñax yaa ngi ni Cheikh Super Diamano moo war a léegi léegi xale bi moo war a bëreeg capitaine dina di ndaanaan kaña ana Baye Fall bi ana Baye Fall bi ana Baye Fall bi situation bi non ba maa mel noonu pour di a baal la affaire pour di laa te dama toll ci barki Serigne Bamba Mbacké dama toll ci li may topp li may topp boobu na li daa lu waxee moo tax daa dem noonu Abou. ndeysaan. Cheikh Super ndaanaan bi. muy bëre koo xamante ni moo ko jiitu ci làmb nag. muy capitaine dina. parce que boo dee xool mbaytin mee ci ginnaaw. waaw digganteem ak capitaine dina naroon na fee neex. Cheikh nag dafa teg woon ay victoire. waaw mais combat bi mu jógee moom ak Mori Cargo. dëgg la erreur ko mu jëm boppam. combat bi yeggul ci biir loolu gis nga ko bëre na fi Moro Furé Furé daan ko waaye daan na fi ñoom Boy Sim daan fi ñoom Scorpion tey daal am na combat bu baax bu ko daanee jaajëf jërëjëf Moro Anta loolu Lamine dina ma tuuti daaj sabar ja wuti géwëlam oh, waaw ndeysaan xale la te ndaanaan la def na laamu ñu ko may lii 77 Mor Fadam rendu hommage le père Mor Fadam ndeysaan mu ngi rendu ci wet gi waa Guédiawaye ñoo ko indi waa écurie Mor Fadam ñëpp mobilisé tey ndeysaan zigzagging. groupe seen reporter ñu ngi leen di nuyu dundee comme ni ñu paree combat rek comme ni ñu doon paree xam nga di pare xam nga di xaar arbitre mu wane boppam comme bi mooy premier combat arena xam nga dañuy dañ koy ñaan yàlla mooy ko ndam ndax xale la mu ngi door a débuté waaw dama am sama benn gars bi caatu li machine waaw day bëre mooy bëre spécial bi moo ko moo taw anta may ñaan caatu li machine yàlla mooy ko ndam xam nga rek man ngay xaar waaw man daa laa xaar nu ma jël. dëgg nu ma jël. waaw yow nu ma jël lamb la lamb daqul xaar amul sens. nu ma jël. voilà jaajëf si yow. Siteu Baye Fall ak xale ak Baol TV. eh waaw waa Dakar Midi ak waa Baol waaw waaw daan la la Siré Baye Fall ko kay da koy daan ndaanaan la de <laughs> oh booy bi am na nu mu bëree ko ndeysaan am na lu ko metti oh, oh. ko fee mu tëdd ndax fooyee bëre ba ndax fooyee bëre ba laa ilaha illallah am nga problème biir plateau ba <laughs> biir plateau ba <laughs> plateau ba la jëli ji couloir yàlla ko yàlla yërëm dem si yàlla si léegi léegi. doomi mbër jàngil la laal bàyyam daanaan la bëri def na lu ci làmb doomi mbër la doomi lan saane la bàyyam am na takku saan bu def na ko fi si làmb. Siteu bu lan sànn moo ñëwoon ginnaaw mbokk internet Dakar Midi les seen leader la puissance du Sénégal ànd see ñi xam ne mooy waa Bawal Bawal TV Bawal borom lamb ji arbitre sifflé na Siteu see bi xam lii kenn ko conseillé mbër day jël avertissement day jël avertissement jël na avertissement waaw waaw day jël avertissement si désert la day yeex daan na la waaw waaw laa ilaha illallah doomu mbër sànni bëre lan sànni doomu na sànni ji daan na jëlamo mbooloo mi doomu la Sadio daan na jël bu lamba ngi nii bu ñu jaxasoo mu neex la ilaha illallah eh, eh eh eh ndigal ndigal ndigal li nga jëlee baaxul ndigal ak Rambo ndigal fu muy mujj <laughs> arbitre li mu joxe li mu joxe la daan waaw ndigal la daan li nga la daan kaay kaay waa kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay lan la kaay ñëwal lan la kaay le eh. yëpp moo tax boo gisee dama daw sax dégg nga ñu war a am bëree bëree mu ngi sant yàlla na ba yàlla mayoon ko bii mooy sama dixième combat huitième a jël de. dama jox sama yi. dëgg la laajal ku la ne. Ndongo Lo saa am na combat moom laa bëgg naa bëree moom. dëgg la Petit Niang. waaw. may ndaanaan laay laaj. dëgg la. wala kii moom mooy sànq Ondela Fou. Ondela oh, Fou moom mooy moom Nokia ñëpp dañu mën a bëri yow. waaw Arafas Arafas. ñu ñëwee samay naataangoo ah, mais comme comme gars yi nanguñu jël. waaw nañu xaaral ñu si yoon bi ñuy ñëw. dëgg la Salah dañuy ñëw. gërëm naa gërëm Caatiri machine ak Taw Anta Caatiri machine ak Taw Anta ñaari mbër yaa ngi leewatoo jërë ngeen jëf combat bi dama ko ko war a jox sa si groupe WhatsApp bi kan laa ak Idaly <laughs> Galaye Idali ñu ngi leewatoo ñoom ñaar Caatu Limousine ak Daw Anta Galaye mooy mbëru mbëri calcul mi Idali si defet la jóge <laughs> dama leen di tooñ waa groupe WhatsApp bi ñu baax lañu mais Caatu Anta ak Daw Caatu Anta ak Limousine doofoo nañu ñoom ñaar Caatu Limasin anta anta Caatu Limasin moo fajal day joor Caatu Limasin moo fajal day Caatu Limasin moo ñu fajal day Caatu Limasin moo ñu wan ginnaaw waaw anta nekk na li nuyu mbokk internet Dakar bi di nii seen liggéey rafet na lool ak waa Guédiawaye info ay ndaanaan ngeen ci wàllum lamb Baol TV ne la xaaral ma dem te ñëw su ma dellu see mu gën fee neex mais le seen leader de actualité jàpp leen Dakar midi incha allah rabi lépp ngeen di am restez connectés toujours les amis internautes di Dakar midi. e eh, cakri machine ak tawanta muri wa dama ka wax ma dama ngan talib ak war ma fàttali nuyu sama xarit yu baax ya bekay maa ngi lay siyaare borom gi ñëwaay info gi nit ku baax ndeysaan yal na yàlla yàggal taxawaay wi wéral la ah eh, waay xale lu mu nar lii lan taw anta wala dañu ginnaaw borom sengoor yi bari ñoo tolloo doole ñaari ndaamal màcc lañu nee la ah waay rokkos yaa ngi commencé si suuf waaw waaw lamb am na fu muy toll calcul day bari am na benn moment boo xamante ne nii da nga mu gaaw lool mu yéex lool ah mu ngi koy fàq jëmale ko suuf mais kor bi ba bi kor ci moo ko dafa kor ci kaw jàpp ci suuf daal ndengeñ ci biir mi lamb dafa dem ay miir kele ci suuf loolu day faral di sonal mbër ci lamb mais bu ñu daanoo Njaxa Njaay bu njëkk day day yëkkati sa mbër sa mbër dem si yàlla ndongolo yàlla suuf woyof ci kaw la ilaha illallah Ousmane Niang borom Dakar bi di maa ngi lay nuyu xol bu rafet borom Bawal TV waa Guèye waa Evo ngi sama wet toog seen liggéey rafet na àdduna bi xos gis nañ ko caatu ànd mbër da ngay calcul soo ko faaxee ba pëtaxal nga war a dafa war a gaaw pëtaxal boobu faax bi ak bët bi benn lay doon. mais bul téléphoné bu fekkee booy bi ma bëre kàlla day dóor tànk soo pëtëxal day rocc loo xam daw ah, waaw mu ngi noonu nag li wax mu ngi noonu comme ku ma dégg de <laughs> day bàyyi rek daw gësam dóor tànk bi si sëñ taaru na capitaine dina war see a ak Cheikh Super Jamono ndeysaan ee eh, waay <laughs> la ilaha illallah des fois booy calcul bi day bari ba mooy war a day teg seen bëre fii da ngay doon éperculé mu bàyyi ubbeeku nga def la kii ba di ko bëtt am na ñuy nar ay machine reporter ak cameraman yi laa ilaha illa waaw mu ngi koy waaw mu sengoor yi nga jàpp booy jàppoo waaw demal mu jeex waay ca baxal sa seen ma <laughs> rabbi jidila fi fakisite ilitu wajie nanan wow wow ewaay eh, eh, eh. jom Medina wow wow wa tey xaa lii moo xew tey lii moo xew tey lii moo xew lii tey lii moo xew tey tey daal tamu sees lañ jël tey daal tamu sees la xale yi jël tamu sees oh oh, oh. laa ilaaha illallah ah! kar leen booy kar leen si biti koo la si jàpp doonu lu mu bugg a dee parce que li yëfu réewande la man ay national yi waay waay war ñu am ay baa ñun li CNG war na si jël ay motuwaay mbër mu ko def ñu la war a sanctionné say supporters sanctionné sa écurie lii rafetut xoolal ma lii xam nga lii yëfu baadoola la lii lii lii CNG yéen moto élection rek mën a jël lii ñaaw na lii ñaaw na Abou benn boy bi maa koy dénoncé policier bi lii ñaaw na ci lii ñaaw na ci daru Sénégal dëgg la lii rafetul ci daru Sénégal dëgg la nit ki bu ñu la defaralee maa ngi lay nuyu maa lay fay doon tey li nga xamante ne xale yi dañ koo jël tey damu siège non lii lii moom c'est à déplorer vraiment man maa ngi doog a ñëw arène nationale mais awma tan lu ma neex sama mbër daan na mais comportement bi supporters yi yor vraiment man moom vraiment métti na ma trop métti na ma trop ba ci kanamu yàlla vraiment parce que ñoom seen bopp la ñuy yàqal buñ defee nii buñ teree seen mbër bëri ñu aj ko après dootuñ ñëw si stade bi bay tëj tëj non lii moom c'est à vraiment lii moom ñaaw na trop moom lu may ñaawlu la moom vraiment naa wax CNG tamit ñu jël ci ay matuwaay tamit lii moom nañ ci jël ay mesures waaw nañ ci jël ay mesures bu dee dañuy sanctionné mbër mi sax ñu sanctionné mbër mi parce que mbër mi mooy indi supporter boo waxee ñu naan boo supporter mbër mi supporter yi deew ñoo ko def mais boo si mbër mi ñëwul lii du am ah non lii moom vraiment lii moom da ko ñaawlu parce que lii moom rafetul ba pare bi taaralul nam munoo newut ci stade jàmbur yi ban génne la defaral sa stade nga koy def nii kon ça veut dire kon yow bu ko ne bokk kenn kenn bëggu da bokk ak yow voilà non man rafetlu ma ko moom wax dëgg ko defee boo léegi dañuy bëgg a ba isaan yi Touba dañoo ñu laal rek. ngeen mu gaaw. waaw maa ngi instant noo gisee tey li xale yi jël ci soo bi jël tey di yàq. waaw loolu rafetul ci gis-gisu làmb. parce que dañ koo defar. pour pour kon bu ñëwee di def lii tey loolu maanaam rafetlu wuñ ko daal na ñun mbër yi nga xamante ne si lii mooy sunu kii daal suñuy affaire. kon dañoo war a ñëw rafetal daal ak nu mu mën di demee waru ñoo jël kii saisi bi sànni ak loolu waaw parce que làmb moom moo ajoo ñii dañuy daan ñii dañuy daanu mais a am rek amal kii yar bu ak teggin yoo xamante ne si waroo jël daal loo xamante ne rafetlu wu ma ko amuñu stade ñun fuñ dem ñu dàq ñu yàlla dogal ñu jox ñu lii ñu ne téye ah dañ ko war a fonk de dañ ko war a fonk te parce que làmb am na ñoo xam dëgg la am na ñoo xamante ne bëgguñu làmb. waaw suñu làmb ji day yàq. mais làmb ji man gis naa ne loolu. waaw man parce que man aw ma lu dul Guédiawaye man abu man dama bëgg waa Guédiawaye. c'est super waaw ndeysaan mbokk internet Dakar Midi international di ndalal ci làmb ndalal ci actualité mbokk internet Guédiawaye info ñoom tamit ay ndalal lañu waaye kenn du waa Bawal TV nuyu pël bu rafet sama jigéen ja Matar maa ngi lay nuyu Matar maa ngi lay nuyu yaa ak pël bu rafet arbitre sifflé na diggante na Cheikh nee na xale la nee allah rabi bientôt kar leen fa suñu sketch koor yi si Dakar midi sketch yi am solo ñu ngi ko fay tourné incha allah rabi ren koor gu neex koor waa Dakar midi mais kenn du pël bu rafet ndaanaan la. borom Bawol TV waa Guédiawaye info liggéey rafet na sénégalais yi nañu la ilaha illallah capitaine dina jël para bi kay capitaine dina doon benn daa bëgg a diriger wala. capitaine dina Cheikh Super Diamono. Cheikh Super Diamono suuf. <laughs> Cheikh Super daan na ko. daan na ko. Lamou Dieng daan na ko waaw lamb ji jeex na daan na ko daan na seesu bi jamono lamb ji jeex waaw daan ko kay daan na jeex lamb ji jeex na. tey daan nañ ko ndeysaan xamul lu xew lu xew ko de. am na lu ko jaaxal de. eh waay eh waay xoolal ma lii xoolal ma Cissé d'accordul eh, papa papa tey lii gis naa lu ñaaw tey si stade bi xale yi jël te benn méthode di yàq lu ñu moom waaw jërëjëf mais xam nga lan moo am solo xam nga da nga ne yàq luñ moom xam nga lii mi ngi soog am tey mais moi je sais que lii dootul amati non seulement ci ci ci côté CNG man xam naa leen ci ñoom matukaay boo xam ne xam naa ci ñoom personnalité boo xam ne xam naa ci ñoom fayda yoo xam ne dinañ jël seen matukaay yi ñu war a def ci biir loolu également les les les autorités policières xam naa ni prochain combat ci kaw yëpp dinañ ko sécuriser man kañ il faut que les gens xam leen lu mel nii ku ko defati gars yi je sais dañ lay jàpp te kuñ ci jàpp dañ lay yóbbu kenn du la ñaanal. merci pour commandant Thioune. merci suba Cheikh nuyu naa la. maa lay fay. tey li may laaj mooy lan xale yi li ñuy def stade bi. Ah, en tant que man loolu gisee li tey. non ma comprendre ma sa mbër daan. dëgg yow nga war a kontaan ba pare am li yi côté yi yëpp du yoon. ndax yow sa mbër bu daanee même bu daanee sax da nga war a fair play nga dem ñibbi. man loolu laa gis quoi vraiment. ma gis seen i stade ñu tabaxal ñu stade yu ñu wax quoi ni lu ñu lu si xol ñun ñi nga xam ne la quoi mais maa ngi ñaanal seen super kenn xamul lu ma ko loo ko mën a qualifié. comment se fait depuis depuis année années. depuis Senghor. ba tey Sénégal ñi ngi jooy arène nationale. ñu am na arène nationale ñu ma defaral ñu ko fii ñu ñëw fi pour foo. xale yi di jël saisi di ko wekk lii c'est de de l'irresponsabilité. CNG nañ ci jël ay dogal. dogal yi ñu ci jël mooy mbër mu mbër mu ñu daan say supporter dajji. wala nga daan say supporter dajji waratoo bëre. c'est tout parce que yii dafa ñaaw ay sunu ay morom la ñun ñëpp ay xale lañu mais bëgg fee nekk jël ay chaise jël sànni sànni ay pour lan affaire yi nga xamante ne nii ñu ñoo ko moom ñoom ñi koy yàq xamuñu ni seen yëf la ñuy yàq. seen yëf la yàq li ñuy yàq ñoom ñoo ko moom. dëgg la de ñun ñoo siy toog. Mhm. waa tooguñu si. mbër yi tooguñu si ñu ñooy ñëw dagg suñuy bee ñëw toog si. Mhm. s'il nañ am responsabilité gars yi wax ak ñoom. xale yi nañu yaru. te ñu si combat boo xamante ne ñu ngi xalaat ñu naan xaj na fi wala xaj fi. Lo ak Modou Lo keneen ñëpp xaj nañ fi. lii du tiital gars yi li ñu def nii tey lii warul non non du tiital gars yi mais maanaam discipline dafa baax ci doomu aadama mhm. doomu aadama da ngay yaru doomu adama da ngay am xel mais jël ay chaise di sànni di def yëfi dof loolu moom yëfu dof la rek jërëjëf mu tay mut sëkk loolu nee la nii lay demee saa su ne tey fii ma fii koy tëjee fi mu ne nii ñu waxtaanee lamb am naa lu ma métti trop tey ci lamb dinaa ci loo xam ne mosuma koo gis yàq-yàq yi bugguma ko xale waruñoo yàq mbay Yékini maa ngi koy nuyu ndaanaan la de nee naa la <laughs> xale yi li def tey nekk na lu ñaaw Cheikh Super jamono xale nga dama lay encouragé nga dem ndeysaan wutiwaat liggéeywaat Fallou Ndiaye ngi nii di ma romb des centimes daanaan moom tamit borom bis bi neexi lig simple yi baax yi xam nga boo xoolee lamb ne demee di ñaanal sénégalais koor ak jàmm ak salaam Lamine lépp lu ñu ñaan si koor gi yàlla ñu ko yàlla defal nañu bàyyi li ñuy def di nuyu ki nga xam ne mooy Abdoulaye Touré borom caaroy géej <laughs> nit ku baax la ndeysaan waaw tey lii ñaaw na lool ci lamb waruñu koo def parce que lii rafetut nekk na loo xamante ne daay man rafetlu ma ko man abu ni ko sama confrère bi Modou Mbaye ni mu ko waxee noonu laa koy waxee waatee lii lu ñaaw la naa leen jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xamante tey ñu ngi suivre Dakar Midi les télé actualité di suivre ñi nga xamante mooy waa Bawal TV ah ndaanaan yi ak waa Guédiawaye Info yéen ñëpp ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam ak ramadan bu baraka naa leen nag ah bu leen fàttee di nag Dakar ah, Dakar Midi ak koor gi incha allah bii nag loolu lu spécial la yaama ma kii may yaama. téeméer Lamine na ma yaama di may. déedéet yaama mënta may yaama dee ma may. dinaa la may.